donc euh, match bi ni ma ko gisee mooy nañu ñaanal suñu Lions yi parce que premier match bi dafa nekkoon ñi nga xamante ne ñun ak Pologne deuxième match bi yàlla daf ñun ak Japon ñoo war a jongante euh, tey ci 15 heures incha allah nañu ubbi xol yi euh, daal di yéene ñëpp jàmm ñaanal suñu équipe bi yàlla may neen ndam parce que ñu bëri dangay ngay dégg ñu naan la 2002 dañu waroon def na 2002 2002 ak 2018 yemuñu suñu xale yi ay ndaanaan lañu ay garme lañu te xale yi yaru lañu xale yu am expérience xale yi nga xamante ne dañoo gëm seen bopp équipe bi am nañ ci yaakaar torop du ñu wax que dañuy jël coupe du monde mais eh, am nañu sañ-sañ am nañu gëm-gëm que ni mën nañu wax équipe bi dina sore carrément mais leneen li moom eh, ay ñaan moo koy mottali ak gëm-gëm. match bi moom tey incha allah ci kattanu yàlla du yomb mais Sénégal dina dina dina gagné Japon. Eh, dina ko gañe 2-0 wala 2 un rek. maa ngi tudd Adama Keita bon affaire nag mën naa ne nouvelle dama ci dugg bu bu bees quoi parce que je suis un étudiant. Euh, vu l'engouement et l'ampleur que euh, nga xamante après j'ai essayé un peu ma dougouchi pour essayer de gagner quelque chose après mon mën de quoi. dans l'ensemble l'affaire affaire yi quoi mais. Euh, maanaam fi ñu koy jëndé quoi fofu non aussi tamit ça pose problème parce que gars yi vie ak premier est-ce que victoire première match bi gars dañu yok sen loxo affaire yi c'est tellement cher mais nak le gars yi client ñom ñong koy jënd quoi parce que instant actuellement vu que fi équipe bi performance bi nga biñu def donc ñom ñom ils sont capables de d'acheter à tout prix quoi lolé jaay ci si marchandise rek. comme euh, gars yi ni ñu ko waxé rek tactiquement et aussi équipe bi équipe bi baxna quoi parce que dañu am discipline de jeu.

est important. Il y a du jeu, quoi. Je vois 3-1, quoi. 3-1, ouais. Et je vois aussi Tamit euh, Mbaïna aussi Tamit défaire euh, match pourquoi pas marquer aussi Tamit. bii bokkul ak bii sax billaah bokkuñu sax bi mooy original bi ñëw bi mooy original voilà. léegi mën naa ko jaay léegi douze mille cinq cent ñaata nga am dëgg dëgg ma ko amee loolu yàlla xam na yàlla mënu ma amee loolu li mu si premier match bi xel dal na quoi maanaam li ñuy jotee euh, seetaan ci match bi daal jàpp nañ ne fi mu toll nii daal am nañ yaakaar nag parce que boo xoolee daanaka lu mësta am am na mooy ren ni ñu motivé woo daanaka 2002 bi rek instant yi dañuy rêvé waat fi mu toll donc loolu moo waral suñu motivation man mii di wax ak yow mosuma jënd mayo mais ren am yaakaar nag ci équipe nationale bi moo tax tey ñu ay maillot wala jënd ay bracelet loolu demee noonu waaw. Sénégal Japon bi ko gisee mooy jàpp na ne gars yi moom tey dinañ dinañ dinañ dinañ dóor gars yi donc loolu laa loolu laa gis bon gis na premier match bon boo xoole Sénégal li mu joué tactiquement ak physiquement nga xam ne gars yi pare nañ pour dóor Japon instant bi kay xanaa instant yi neuf points laay xool quoi mais si si moom pour man c'est non gis naa tey gis naa deux heures gars yi dañoo yokk maillot yi waaw dañoo ay quinze mille douze mille Le format est un format relativement simple. Hein. Euh, cette année, malheureusement, les matchs se déroulent à des heures où le soleil tape très fort euh, dans, le continent. Et donc, euh, selon les matchs de 10 h 12 heures, voire 15 heures. Le meilleur moment, c'est peut-être 17 heures ou au-delà de 17 heures. Nous avons une salle qui n'arrive pas à contenir tout le monde. Donc, nous avons pensé faire une extension de cette salle en mettant notre système euh, fan zone à l'extérieur pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer, mais qui vont rester au soleil. Mais il y en a qui sont intéressés par les matchs, qui sont de grandes personnes ou désireuses d'être dans de meilleures conditions, à qui on fait participer. On ne les fait pas payer, mais on les fait participer. Parce qu'à 5000 francs, vous avez un fauteuil, vous avez euh, un plat salé, euh, un pot de pop corn et une boisson. À 2000 francs, vous avez une boisson. À 1000 francs, vous avez une boisson. À 2000 francs, vous avez des tabourets, vous êtes plus haut. À 1000 francs, vous avez des assises. Donc tout le monde est assis, tout le monde est plus ou moins confortable. Parce que sur le dernier match du Sénégal, on a été envahi, il y avait trop de monde. Même dehors, ceux qui n'entendaient pas forcément regarder que les images. Donc là, sur ce match du Sénégal exceptionnellement, on a fait une extension en mettant une fan zone, un autre écran à l'extérieur. Euh, pronostiquer, c'est trop fort pour moi. Je souhaite de tout qu'on gagne, qu'on se qualifie à tête bien reposée et que tous les autres autres qui sont partis euh, sur la Coupe du Monde puissent euh, goûter carrément à la Coupe du Monde, jouer sur le troisième match. Le principal, c'est qu'on doit donc euh, nous donner tous les moyens de réussir le match d'aujourd'hui, de le gagner, comme ça on est qualifié tranquillement. C'est tout ce que je souhaite de tout cœur, comme tous les Sénégalais et tous ceux qui aiment le Sénégal. Mais pronostiquer, ce n'est pas dans mon fort. vu le dernier match, je ne dis pas qu'ils ont très bien joué ou qu'ils ont mal joué, mais ils ont été très disciplinés et très engagés, et c'est le plus important. Avant tout, je dañuy féliciter l'équipe nationale te di xam ne vraiment li boo ko gisee mooy peuple bi yëpp mi ngi seen ginnaaw te booyu naq on a jàppale lañ ndax wane nañ jom ci terrain bi wane nañ ci fulla wane nañ ci fayda fexe nañ gagné confiance sénégalais yi ba match bi stress bi on doon demee ah ñii di euh, Euh, suukar di màcc suukar di moins donc tey am na pression mais Sénégal confiant ci ay doomam yi nga xamante ne ñoo ko teewal euh, ca coupe du monde di naan yàlla mu may ñu ndam te incha allah dañuy am ndam vraiment. waaw waaw maanaam li ñu tegoon rek ah euh, la meilleure façon nag de se défendre c'est d'attaquer waaw système bi ñu indiwoon keroog jàll na Aliou bu mu ci teggi yooga même classement on ne change pas une équipe qui gagne donc bëgg nañ booy yi mu tegoon keroog mu teg leen gars defal bagage Japon mu gën a gaawee. score bi nag euh, waa man nag euh, damay bañ gaa yi catuma baal ma denc score bi rek ba après ma wax après match bi. <laughs> félicité leen félicité jour yu équipe nationale yi rek vraiment ndax xam nga yenn mbégte yi ci xol ak yenn yenn booloo yi yenn juboo yi yenn ànd yi gis nga dëkk mi ngi nekk en guerre sax football am fa ñëpp wéer ngànnaay yi politique lu mu metti metti metti metti metti lu politique metti metti metti gis nga ñoom ñëpp opposition beeg pouvoir ba yëpp ña nga Russie loolu football rek moo ko mën te puis aussi euh, li olof naan kuy yuutal ñaax a jàngal tufli waaw vraiment booy yi neex nañoo jàppale neex nañoo ndamoo am nañ jom am nañu fulla ci li ñuy def am nañu fayda may wax sénégalais yi rek euh, lu mën a am bu ndam amee moo ñu gënal bu defet amee it nañ ànd xam ni yàlla mooy maye buñ leen tagg xas leen ëllëg. surtout loolu bu ñu leen tagg tey xas leen ëllëg te coupe euh, coupe du monde dafa nekk loo xam ni compétition au niveau la waaw ñun pays africain yàlla dafa def ni tollooguñu ci da nga maam stade boobu tollooguñu ci niveau boobu dañuy dem rek surtout que ñun équipe Sénégal bi ñu yor équipe bu jeune la lu ñu am nañu jël daw ñibbisiwaat defaruwaat lu ñu am ñun sunu premier objectif na war a nekk coupe d'Afrique ba pare. sunu premier objectif balaa moo nekk coupe du monde na nekk coupe d'Afrique ba pare coupe du monde bi nag tubaab yi respecté nañ ñu loolu amul loolu moom ñun ñun def nañu sunu sunu marque indélébile waaw ñun posé nañu sunu marque li ci des nag nañ def rek fulla ak fayda lu ñu am ñu ñu ñibbisi ngal la ñu bañ leen a xas man xam nga duma ma pronostiqué damay bàyyi rek lu am ma xam ne loolu la mais daal li ma gënal mooy yàlla na Sénégal gagné waaw looloo ma gënal waaw